baax a baax yàlla leen yàlla fay. léegi walaay walaay. walaay yes nii na gis nga bi ko yónnent bi ne walaay yes nii na. Hmm. ndaw si dafa tiit. Hmm. dafa jàpp loxoom si gémmiñam ne yónnent bi atas ni xurra. ndax góor dina njaaloo hmm. xam nga xam na ne moom am na lu ko naqari ba mu rey lu nit bañ ko reyee dafa dem di ko wër bañ ne euh, wax si rey nga ko mu ne waaw ah, mu ne ko nañ dem mu won ko ko xam naa ñu bëri seetaan ngeen ko ci film Muhammadu Rasulullah boobu nga xam ne noonu la tudd Seydina Muhammad man laay wax mu ñëw ba tiim Hamza xar dënn bi ubbi ko poitrine bi génne foie bi yëy ko nee nañu daggit boobu lu xam sa loolu jàll ci moom jaxasoog deretam mu wann ko moo ko tax a ëllëg moo ko tax am sance boobu su woon loolu du dugg ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga kooku kon am na fit mais ndekete musul xam ci adduna ne ndekete gor am na fitu dem mooy jëkkëram xam na rey nit xam na am tiim niiw xar dënn bi niiw bu tol ni Hamza ca Uhud ca taawu xare xam nga kooku fit wax nga fi bërki démb njàmbaar ga mu dem mais malgré loolu yëpp musul xam ne ndikiti jigéen sañ na romb boroom këram di mooy yàlla moo tax mu ne yoon yonent bi atas ni xurra ok teel na atas ni xurra waaw jël ki ci bi balaa mu ci yàgg salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam Oustaz Mor Thiam waaw kay ñu ngi ziyaare bu baax kooku. ci eh, benn mbokk bu nekk Jolof la. waaw kay muy. Ah, Ousseynou Si. Si. Si. ñu ngi ziyaar bu baax. Serigne Ousseynou noo def. Si. naka waa Jolof yëpp. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah sëñ Ousseynou ñu ngi leen di siyaare bu baax. jërëjëf sëñ Ousseynou. waa Jolof ñëpp ñu ngi leen di siyaare. di leen ñu ngi leen koy delloo ñu ngi ziyaar waa mbëll yang yang. ñu ngi ci baal xaq bu baax. baal nañ leen macha allah. ñu ngi si yaram Ousseynou si Medina Medina si nag lan dëkk bi. ah Medina si. waaw jërëjëf sëñ bi de. ñu ngi ziar bu baax. jërëjëf. ñu ngi kontaan si jar waxtaan. nuyu ñu waa Boulel yëpp boole ci. wallaay dinañ ko dégg. <laughs> macha allah ñu ngi leen di dégg bu baax. ñu ngi leen di fii la ëpp macha allah. yéen si yaati weeru koor leen baal xaq. baal nañ leen yéen tamit macha allah. ñaan yàlla ñu dugg si jàmm génn si jàmm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. mbaax ak yeneen ci bi alayhi salaatu salaam. amiin amiin yàlla dafa naan. فمن شهد منكم شهر فليصمه اسكي yàlla moo ko wax. Mhm. keneen wax ko ko doon yàlla. Mhm. wax yàlla moom nag. Mhm. dañ koy appliquer rek def ko. ni mu ñu ko digalee. dëgg la. bañ kaa def nu ñu neexee. or nag. du xiif ak naan ak mar. waxaare. sa lami day or. Mm-hmm. sa nopp ak sa day or. Mm-hmm. du nekk ci loo xam ne daal. Mm-hmm. da ngay xiif ak mar rek yeneen ci bi ne war du xiif ak mar. dëgg la fekkee xiif ak mar la. demal nga dem naa ni ndox. ndeysaan. jër ko. dëgg la. wa tabarakallahu di leen baal xaq yéen ñëpp. baal nañ la yéen tamit baal leen ñu. jërëjëf si. man lam yedda. jërëjëf. xawlu surri. والحمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وشرابه est-ce que kon di leen baal xaq bu baax baar nañ leen baal leen yéen tamit di leen siyaar bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf di ñaan yàlla ngeen defal ñu ñaan bu la ñu fàtte yéen tamit. duñ leen fàtte mukk. baarakallaa fik si kontaan na ci seen waxtaan. jërëjëf si. di siyaare soxna su tedd suusu. wallaay mi ngi lay dëgg la si Malick. jërëjëf di siyaare moom njabootam. alhamdulilah na yàlla barkeel leen. amiin amiin di siyaare di nuyu borom la mhm. ko taxaw ko. amin hmm. amin ba réew mi fu mu ko bëggee eggal yàlla eggal ci jàmm. amiin yaa rabbal alamin ak yal na yàlla may ñu jàmm. amiin jërëjëf si jàmm nag. amiin si loxo li ko sëriñ suñu sëriñ di ko wax Mbaye Abdoul Aziz. jërëjëf si. mu ne jàmm mi ngi suñu loxo. jërëjëf si. dañu koy appliquer rek. jërëjëf. kon tabaarakallahu. baarakallah si. baax na jërëjëf ñu ngi leen di ziar bu baax. yal na yàlla fay la yiw macha allah si. jërëjëf. baax na jërëjëf. baarakallah ñu ngi bég bu baax. Eh, defe naa régimel nañu koor yëpp te résumé nañu koor yëpp. koor yëpp wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan parce que comme suñu borom moo wax ni. maanaam mu ngi tere ñàkk jom ci biir waxam. Mm-hmm. fa man shahida minkum as-sahra falyasum wallaay ndeysaan euh, minkum shahra falyasumhu comme ku ku fekkee weeru koor te amoo benn ngant amoo raison pour lekk ak naan wallaay ndeysaan parce que santaane yàlla la mhm. jeex na kon nag koor du xiif ak di mar rek mhm. loolu yal na yàlla fay ko yiw mhm. ci ci wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan yaa ngi doon wax ci na si bi ti bi waxee wala yasnin bu leen njaalo te fekk ne moom tigresse la woon njàmbaar la woon wante mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko est mhm. ko que dina njaalo est-ce que góor dina njaalo moom xamoon ne góor sañ na njaalo da téyel ma foofu dégg nga mhm. parce que loolu am na solo même bu fekkee de heure bi dafa jot mhm. ñu dem feneen jëli ko am na ko nekk ci ligne bi macha allah <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah salaam suñu taas waaw kay ku baax ki ñoo ngi ñu ngi la koy delloo di baalu àq baal nañ leen kooku di kontaan ci seen bi wallaay macha allah di jëf toogaay jëf ma rajo jërëjëf bi naka la. sa dama koy nga ci droit macha ma wooyee la bu baax leen ñaan ngeen yàgg fi dama doon laajte. ndax si weeru koor bi dama see amoon doom. mais yàlla dafa def li ci biir weeru koor bi nii. ci biir weeru koor bi nii nga amoon. dama see amoon doom waa si si jour bi quatrième jour bi rek. waaw. mais yàlla def li gën nag doom ji fiiwul. yàlla na yàlla wutalal la leneen. amin amin amin hmm. léegi ma doon laaj ba xam boo demee ba sa pot set wala dara ndax di nga mën a um koor wala. jërëjëf incha ko tontu léegi léegi léegi. Hmm. waaw waaw ndeysaan laa fekk jërëjëf. nga xam dinaa mën a um koor ci weeru koor gi wala dara. jërëjëf incha allah. incha allah. Hmm. ngi ñu koy. wallaay ndeysaan du set nga. Euh, waaw fu ma waaw seen naa nag moom. waaw mu ngoog ah, alhamdulilah après nga déglu bu soobee yàlla daañu la tontu. Ah, ah. Adja ñu ngi koy ñaanal yàlla. wallaay ndeysaan. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla. wutal wutal wallaay ndeysaan wutal bu toog. macha allah boobu nag ma wax ko ni ko jëkkewu ko. Mm-hmm. parce que Seydina Muhammad mm-hmm. am na yu bari yu màggul. waaw mm-hmm. ndeysaan. am na yu bëri. Abdoulaye ak yu màggul Alqasim ak ndeysaan ah, Ibrahima. te ñooñu te ñooñu màgguñu. wallaay ndeysaan. Eh, kon nag moom bu ko dalee bu ko yàlla tegee li mu tegoon yonent bi. Uh-huh. na ci sant te sax jot la te ñaanaat jot la ci àjjana. waaw kay ma nubtuli ya. ok mu jigéen ju ñàkk doom. Mm-hmm. dane Aïcha ñett. Mm-hmm. mu ne ko bu dee ñaar mu ne ko wala ñaar mu ne ko mu ne mu ne ko mu dee même benn. jot la ci yow. Mm-hmm. ci àjjana. pour nga dugg àjjana. parce que dañu wax ne. mu wildaanul muxalladuun mm-hmm. yi nekk aljanna mm-hmm. mooy doomu jullit ñi teel a dem te bu ëllëgee li ngay gis noonu noonu lay wëree mm-hmm. yaayam ba gis ko jàpp ci mbub mi waaw dama moom ba ci borom bi mu ne ko sunu boroom sama yaay yaa ko xañoon bànneexu doom. tey jii nag munul ñàkk bànneexu doom nekk ci coono. sunu borom ne ko loo bëgg mu ne ko mu dem ca kër gu neex nga def sunu borom ne tijji leen ko mu jàll. <laughs> macha allah macha allah wallaay ndeysaan nag bu ci boolee nii mu euh, question bi mu posé. ne ndax dafay woor ak mm-hmm. ndax xam nga fi oustaz Mor ñun jigéen ñi. Mm-hmm. dañoo aada woone bu ñu wësinee rek il faut ñu toog 40 jours 40 jours waaw. te euh, deretu wësin. Mm-hmm. su daggee même jour bi nga accouché. Ah, ah. même bu dee bés bi nga wësine mhm. la deret ji set mhm. nga def sa garniture mhm. nga fanaan ci wala yaa xam looy def pour euh, protéger sa deret nga yeewu gis mu weex tàll dangaa war a sangu set jàpp julli commencé di commencé bu fekkee koor gi xej na sa wéra di yaram mayu la ko mun nga leb wala dangay nàmpal mais moom xam nga nàmpalatul xëy na macha allah wéram kii na li tax mu laaj ko moom dafa war a sangu set jàppaat kooram li des nag te médecin yi wax ko ci ñi nga xam ne su su euh, saytu wér yaram jabaram ñoo ne sey ak boroom këram la ñu ne nag loolu mun na koo jàppal ab diir tuuti. Mm-hmm. waaw ba ba bi waaw ba mu wér tuuti ba mm-hmm. yaramam dellu si. waaw mais julli gi moom. Mm-hmm. parce que ñun dañuy boolee julli gi ak sëy bi la ñuy taqale ne tant que amul 40 jours. am na ñoo xam ne dañ koy yóbbu ba ñaari weer sax. or que léegi médecine avancé na avancement boo xam ne mun nga wasin tey. le lendemain nga set ci sa deret. bu boobaa dangaa ngaa war a jàpp di julli ci clinique ba wala ca hôpital ba. te xam nga néew na nga gis jigéen jiy julli ci maternité wala si ndax ndax ragal société bi rek. waaw pourtant ndax léegi boo jullee. du duñ la xoole bëtu ne yow da set ci deret. Mhm. dañuy xoole ne kii kat boo demee commencé na ànd ak borom këram. Mhm. ngay moytu loolu nag ba faf doo ñemee faf julli. ñaar la yu bokkul. dëgg la waaw. Mhm. walaw fii yow mil wilaadati. wa yow fii yow mil wilaadati yaxtas waaw da ngay sangu julli. li des nag mooy sa borom kër moom mën nga bàyyi ba sa yaram gën a sedd. dëgër waaw kay tubarkalla macha allah. kon nag soxna si sa bi mi ngi noonu. nga bàyyi ci xel ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu waaw ñoom it ñu bàyyi xel ci loolu mm-hmm. Mm-hmm. itam ñu jéem ko fay. dëgg la ci julli gi. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam am na nee na bu fekkee ne yow dala wóor ne tànnangam ba tànnangam julli woo. saa yoo jullee tegaat ci ràkk yooyu. parce que ñun ñëpp dañuy xool ne eh, damay faral di wax ne en général guddi gi ñu la joxee sa borom kër. fajar googu néew bari na ñu ko yore bor. ndax bàjjen yi dañuy ñëw yëkkati rek ñu nekk ca laabaan gaak daanaka juróom ñetti fanu céet yëpp doo julli. Mhm. waa céet lu mu jotee ak bañ a julli. est mais loolu sew sew la ah, ah. doy na waar. macha sa jour réception mariage. 14h mhm. euh, yaa nga ca salon ba. Mhm. nekk fa ba ba 18h julli woo tisbaar julli woo takkusaan ñu mag yàlla nga fanaanoo noonu ñu muur la nga dem sëyi. ñu jébbal la sa boroom kër bu ñu xëyee dañuy jël dàmp la.